mbokk internet yu 5 maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun euh, dalee nag jàmm ci li gën a fës ci réew mi coppite am na ca parti démocratique sénégalais waaye Bara kenn boolewu ko ca fan yu bees yi nga xam ni moom moo fa am euh, moom mi nekkoon nag ki jiitu ci secrétaire général adjoint yu maître Abdoulaye Wade yi euh, Daouda Niang wuutu na ko rek ca poste boobee ba tey moom mi nga xam ni mooy maire bu Thiaroye-sur-Mer depuis atum 1996 wuutu na rek maire bu yëmbal bi ci poste rapporteur adjoint euh, ba tey Ndiaga Niang fal nañu ko secrétaire général adjoint buy saytu rek lépp lu jëm ci diggante PDS ak ñi nga xam ni ñoom ñee la seqal làngu politique bi si noonu yeneen responsable yu nekk ci parti bi bokk nañu léegi ci secrétaire général adjoint yi ku ci mel ni député ba woon di Mamadou Lamine Thiam Cheikh Dieng Mayoro fay Lamine Ba ak maire bu ginnaaw raay sud bii di Abdoulaye job euh, Baara Gaye nag nee nañu amaana ñàkk déggoom ak Karim Wade euh, moo ko jural lu kan eh, bu nek rek ca VDN ba ñi amal nak li nga xamni modi moo njaayum carte yi te ñu ni won ay farando wam ñoko def eh, juru ci jamm ndax rek lolé da merlo won bu baakha ba ki nga xamni modi maître Abdoulaye wad eh, ñu jall ci ciowal conseil économique social et environnemental mi tulé nak xaarul dara ngir tontu Idrissa sek mi ne won nak fekk lu ben dossier ñeel këru këru liggéeyukaay kay bobu limu ko xamal rek mooy wul li tax rek CESE e bu bes bi ñewul won ci passation de service xaalis ba ndax bu dee daa am lu lëndëm ci boppam wala nag lu mu bëggoon a leerlu bés boobu rek moo doon fi mu ko waroon a defee Mimi Touré teg ca ni problème bi mooy Idi daa toog lu yàgg te liggéeyul ndax rek doxalin yu bari rek daa am ay coppite ndax jamono ji lépp rek ci ay liggéey ci informatique bi rek lañu koy amalee ñu dem ca pencum ndawi réew mi njiit la di Moustapha Niass jébbal na rek ab rapport bu jëm rek ci liggéeyu mbënn mi ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall mu àndoon ci nag ak délégation boo xam ni ay député rek ñoo ko seqoon euh, Macky Sall nag gannaaw waxtaan bi mu seq ak Moustapha Niass euh, jaajëfal na nag député ya si liggéey bu am solo bi nga xam ni amal nañu ko euh, jëm ci rapport boobu. ñu woyal ak compagnie sucrière sénégalaise këru liggéeyukaay boobu nag daa nekk rek ci ay jafe-jafe loolu moo tax ba bu ñu moywul entreprise bi dina dàq lu toll si juróomi téeméer si ñi nga xam ne ñooy ay liggéeykatam ay jafe-jafeem nag bokk na ci boru juróom-ñaar fukki milliards nga xam ni nag moom la am Euh, ñeneen euh, ñu nekk rek ci ay jafe-jafe mooy étudiants sénégalais ca Wuhan euh, ndax ñoom ñooñee daanaka rek ay prisonniers lañu ndax ñoom ñi nga xam ni seen ko lim toll na si fukk ñett ba tey rek ñoo nga ñu tëj ci seen université ya te contrôle bu tar rek la àndal ndax ku bëgg a génn sax day laaj li nga xam ni moo di autorisation boo ko amee ngay soogay génn boo ko amul nag doo génn njiital groupe des médias Bougane Gueye Dany bés ni tey dem na ca Touba defaru ci lak lak ba won ca marché okas ci nonu sax mu dal di dem rek ci ndindi ngir seeti ki nga xamni modi serigne abdou karim mbake waye borom makaarimal akhla dalal na xelam ndax xamal nako ko euh, mo ngi koy ñaanal fu mu tollu <coughs> kon mom bu gan ngay dan yi dalal xelam euh, ñu wëyal ak kawteef bo xam mo nga amé ca west foire euh, ndax ay jigéen yuy jaay seen bop rek lañu fekk ci ben auberge ak lu tollu si ñaar témir ak ñen fukki paquetu préservatif ak juroom ñent bouteille lubrifiant borom auberge bi nak ak gérant bi euh, démb rek la ñu leen yóbbu ca fa ñuy àttee ñi nga xam ne dañoo booloo di jëf ay ñawteef euh, ñu wëyal ak wëykat bii di Guigui euh, moom nag jamono yee ñu génn daa génnoon rek ne moom daa vierge maanaam xamul góor te day toog rek ba xaar day toog rek di xaar jëkkëram ci loolu nag kenn koo xam ni jot naa nekk ak moom nekkoon copain ci benn audio bi mu fësal xamle na ni Guigui li mu wax naan rek li mu wax mën naa nekk ndax rek bi muy génn ak moom def na lu nekk tey defal na ko lu nekk nekk waaye masul rek jot si moom euh, mu xam leen ni euh, mas nañoo toog benn jour euh, mu génneel ko 50 millions ngir bëgg a tëdd ak moom waaye loolee rek Guigui nangu ko woon te it à chaque fois bu ko doon jéem a rak di ko làmbaatu wala di ko fóon sax gi da ko doon repousser alxayri jib na ci diggante Omaro Gueye ak Ayo Balde nee nañu nag moom présentateur bu 2STV bi warugar bu toll si ñetti millions si kopparu CFA parure en or oto 4x4 ak benn terrain boo xam almadi 2 la ko daal di jox euh, ci noonu sax ki nga xam ni nag moo di soxna si fësal na ay photoom ak omoro ba noppi nag daal di ciy bind euh, bay ut jëkkër bu ko coppati nee ko cas ci digg bi euh, na rafet te sant Guèye ba tax nag rédaction bu Sénégal 5 ak bu 5 TV ñoo ngi leen di wax rek heure ménage ñu jeexal ak yaa Awa moom nag animatrice la foofee ca TFM moom nag jamono ji nekk na koo xam ni ku ñu ràññee la ci télévision yi muy nag ku mën trop li nga xam ni moom lay def ba tax rek rek ñu bari daal di koy sopp moom nag célibataire la waaye namul dara ndax rek ci luxe ak classe lay fay te saa su ne bu génnee rek ci la koy gis. fii la ñuy yem ak yéen mbokk internet yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu woyee leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba suñu cloche de notification bi ngir ngeen mën a jot ñu yeneen i vidéo ci saa si jërë ngeen jëf.